Euh, je m'appelle Madame Émilie Zalé, je suis la présidente du parti Diapo Soukoli Sénégal, euh, membre des conférences des leaders, allié loyal à son excellence depuis 2012. ba pare nekk Madame le maire dans la commune de Sicap Liberté. dañuy sant yàlla euh, di remercier son excellence la président Macky Sall tey jii ku gisati lu mu defati nii ci infrastructure muy BRT bi lu ñu mën moy rendre grâce à Dieu ba pare delloo ko njukkal sargal ko. parce que ëmp leen ne tey jii il est le meilleur président waxuma la du Sénégal mais de l'Afrique à travers son plan Sénégal émergent tout ce qu'il a fait depuis 2012 jusqu'à nos jours toutes ces réalisations resteront gravées dans le mémoire du peuple sénégalais donc tey jii suñ fi teewee tey war a inauguré BRT bi mu sargal ñu ñun waa SICAP nekk ay responsable fii BRT bi di fi jaar ñu am fii échangeur bi loolu dañ koy santé son excellence di ko wax ne tey lu ñuy ñaan population bi mooy Sénégal dañu bëgg ñu xam ne ci loxo yu wóor la nekkoon muy loxo son excellence le président Macky Sall ñu bëgg nag tegaal ko ci ay loxo yu wóor muy notre candidat le premier ministre Amadou Ba parce que nag excellence monsieur le président moo ko tànn te su ko tànnee dafa xam na ne que tey nii pour la continuité du PSE pour consolider les acquis de toutes ces réalisations Amadou Ba fait son choix. Donc nous, nous, nous, en tant qu'alliés de Beno Bokuyakar, et je dis bien allié loyal depuis 2012, nous, nous, nous accompagner le candidat Diapaleko pour avoir une victoire éclatante au soir du 25 février 2024. Je vous pose la question, pourquoi Amadouba Bon, le choix, tu sais, et nous sommes nous avons générosité, solidarité et loyauté. Nous, nous, Sall lañ yàgg a àndal moom la xam moom lañu ñu miin kon nag tey su ba nañu ñaan naa leen yéen ñëpp alliés sama waa parti ngeen bàyyi ma def le choix ñu bàyyee ko ko mu def le choix lu ñu mun mooy d'accord si parce que xam nga lu moom dafa béy waa waari Sénégal ba pare réalisation yi tant dans de la santé de l'éducation des infrastructures du monde rural de l'entrepreneuriat yaa ngi dégg loolu rek doy na ci Sénégal léegi nag lu des mooy jekkali feccali moo ci des mooy la consolidation de ces te loolu nag comme nee na Amadou Ba la la ko jox lu ñu mun mooy ñun ñëpp ñu joxante la main dans la main ànd ak le Ba ñu mun a am un Sénégal émergent surtout nag lu ñu lu tax ñu gën a bëgg ànd mooy te di ko ñaan mooy faire tout pour résorber le chômage des jeunes parce que tey ji suñu maam yi suñu yaay béy nañ seen waar mais tey jeunesse bi su amee liggéey rek Sénégal day gën a naat waaw kontaan nañ daal kon nag bés bi nag mënuñu dul di sargal son excellence le président Macky Sall ñaanal Amadou tamit yàlla may ko ndam au soir du 25 février non réalisation Macky Sall rek gañaloon gañaloon nañu ba pare les de son excellence rat moo tax ñu gagné Amadou dafa ñëw a yokk waaw franchement. ñu koy ñaanal rek euh, yal na campagne bi yomb et la paix règne dans le Sénégal la stabilité et la paix sociale. incha allah waaw yow du xam nga man moom euh, sama engagement indéfectible ma lu ma dugg rek dama siy dem ba jeex xaaruma si dara. yaa ngi dégg waaw gëm sama bopp nekk un chef de parti un leader loyal kon nag tey euh, Amadou Ba suñu candidat su waree ñëw Sicap lu ma war mooy taxaw taxaw leader taxaw bu mot leader laa taxaw.